ñenn ñoo xam ne jóge assemblée la da remplir na mission pare na contrat ak ñun. bu ñu la jëlee contrat nga liggéey ba pare ñun ñooy apprécier ndax remplir na contrat am ak ñun Macky Sall dañ ko fal démocratiquement en 2012. Hmm. falaat ko 2019. alors loolu. <coughs> ne ko euh, président booy dem dañoo bëgg nga def passation. ak ki nga xam ne moom moo la nar a remplacer ndax président pour la première fois de l'histoire de notre pays di nga organise élection boo xam ne yow miy nekk président en exercice doo ci bokk sénégalais yëpp kontaan ñu naroon na kañ suñu taarixu démocratie est-ce que Macky Sall remplir na condition remplir na contrat bu fekkee ne Macky Sall mu ne le deux day dem buy dem du def transition bi ni ko sénégalais yi bëggee woon. est-ce que Sall remplir na euh, contrat am Macky pour la première fois mu indil ñu un cas de vacance du pouvoir au Sénégal c'est-à-dire tey Macky buy dem remplir condition Maïmouna et Kaba retiré na wax na ko xaw ma dafa retiré xaw ma da doon da doon tëkku gars yi xaw ma lu mu doon def. et c'est ça que les textes prévoient dañuy dugg ci ak ci transition avec un président intérimaire est-ce que ñun mission boobu lañu doon xaar. non même non da ngay comprendre ñaari mbir mission bi nga wax ne Sénégal yi joxoon nañ ko ko dafa am diir prolongement bi prérogative du jóge ci moom suñ lay élu ci mandat mandat muy diir bi diggante bi ak fii nga war a yem. ci sama yaakaar loolu mooy élire nit mandat mission bi yàlla dafa dogal li tax circonstances yi am mooy report des élections 25 février bii passé moo waroon nekk suñu élection présidentielle mu am report li fi indi jaxasoo yépp ak jéegi jaak yi loolu bokk na ci loolu li nga xam ne ne report des élections bu ñu reporter des élections euh, nos les députés du Parti démocratique sénégalais déposer enquête parlementaire déposer beneen résolution ñu ñëpp ñu ànd ci ak ñoom pour seen candidat di Karim Meïssa Wade mën a bokkaat ci élection présidentielle yii di ñëw on a été des politiciens yoo xam ne ne on est tous sénégalais su Macky Sall wootee jaloo bi passé tout le PDS venu ñëw taxaw ñoom xalifa ñu waxtaan juboo ci ay kaddu bu ci engagement ay amee wala ñenn ñi jël ci ay garant pour cette genre de réconciliation nationale su amul de naqari ku ne parce que kii war a nekk président ëllëg suñu borom fal na ko bu yàgg kon nag man yaakaar naa Macky Sall dafa remplir mission am pour mu mun a amaat beneen mission en dehors du deux du doon loo xam ne ne moom mooy toog xaatimal boppam ndax li nga xam ne ne amoon na ba pare ñu jël loi yóbbu ko assemblée nationale ñu voté ko ñun ñii ba pare jëlaat boobu loi yóbbuwaat ko conseil constitutionnel def ko dàq malgré nag li ci nekk ci wàllu droit far ba moom xam nga ne man awma benn complexe man loo xam ne ne maîtriser wu ma ko kenn duma ko wax loo mais après sa les deux la mission am yàpp su ko Sénégalais yi di dénkaat leneen pour mu mun a continuer di leen doxal dafa am loo xam ne quelque soit ce qui se passe tant que jógewul ci conseil constitutionnel ci sama xalaat bu gàtt di du doon loo xam ne ne dina nekk taar ci biir réew mi wala mu doon loo xam ne ne fii ci biir Sénégal may mun a euh, bu ko conseil constitutionnel validé wul même mi chef de l'État aujourd'hui cinq ans yi nga xam ne daf ko jotoon bi cour d'appel joxe les résultat yi nga xam ne ne officiel ba pare il faut que ça soit confirmé par la conseil constitutionnel ci la recours yépp ci lay jeex am naa yaakaar kon nag mission am moom mu ngi jeex le deux beneen mission pour mu yoralaat ñu réew mi nekkul ci prérogative boppam doo xam da koy prolonger mais mais su dul loolu tu connais les politiciens comment ils sont qu'est-ce qui s'est pour que Macky Sall ñëw le 2 le 3 février mu reporter élection yi Eh, non non xaaral eh, dama dama bëgg c'est-à-dire lan la Macky Sall sukkandiku qu'est-ce qui s'est passé mu ñëw reporter élection yi réew mi dugg ci ci ci crise mais xanaa coow lu bari ba moom tey mu nar a dem passer le témoin peut-être du passer le témoin le deux xaw ma nu mbir mi di tëggee. mais du passer le témoin le nouveau président élu. non qu'est-ce qui s'est passé non est man am naa yaakaar ma mission moom mu ngi jeex le deux. fan lay passé le deux. rek mission mu ngi jeex ci mandat bi ñu ko élire bu xëyee le trois xëy mu ngi ci coobare boppam def lu ko neex. tant amul. na waxuma loolu. waaw conseil constitutionnel qu'est-ce qui am na ñu bari ñu jàpp ne. waaw. même ci seen camp. am na ñu jàpp ne président en reportant les élections dafa def erreur bu mag. warul woon reporter les élections problème bi booy naan da ngay xam lu lu président xam te nekkoo président de la république yaa ngi ci lu tar bu bari.